yoo xam ne bu dul woon ak ndaw bu dul woon ak moom ndey ak baay du am te ndey ak di jaar kon kooku mooy ma ba yàlla mu nga teg tànk ci suuf ngay mën a jaar ci kaw ku dul yàlla yow mu yëg ni ko nag wala nit boo xam ne bi àdduna yëpp la koy jël ñoo ci bayante bi yëpp mu defal ko ci ban anam melul ni sëriñ lay nga xam ne fu mu waxee ñu defal ni safar aw aljanna am na safara rek ba abdul aziz lay lay koy mun ma sama aaya bi yóbbu na fii aljanna am léeg-léeg ñu wax a wax wax seetlu xool na moo xool ko mu ma xanaa aaya bi yóbbu na aljanna nit ñi amul nga jaar ci bopp waaye Seydina Muhammad dafa ñoo nekk rahmatan nekk yërmande nekk yërmande ci mbooleem lu yàlla mbooleem lu yàlla ñu yërëm bay yërëm jaam ñu yërëm bay ba ba gileem yi di aw di ñëw di di kalaame si seeni borom ci yow waaye war a fata lil aalam كنا في الاخر بنجيب السفر بتاعت يا ريت ولا سفر انت جبت السفر توعد القلب جزاكم الله عنا خيرا جرجف دنيي تامبل دنيي تامبل رك كوكو صلى الله عليه وسلم لا موتاخ ني نان جولي يال نكو يالا واتي سي نيبوتام واتي كو سي صحابه يك لوم ام لي ني لي ني لي ني واخ سانتي صاح امنا سي بن رول بو خامني بو مودو رول صلى الله عليه وسلم يك ني كو تان دو نين كو تان آه، دا نان سي اكسي ان شاء الله kon nag ñuy yëkkati kàddu nuyoo muy jàmm ak yërmande ak barke yàlla ko yàlla def ci ñu def ko ci mbooloo bi mooy baati asalaamaaleykum wa rahmatullah di ko jëme ci mbooleem ku fi toog di di jigéen waaye it di ci beral xususiya ñi nga xam ne ñoo xew la tey daje bi tudde seen bopp ñu ko tuddee ngir yaakaar ba yàlla bu ko yàlla tas ñaan yàlla rek yàlla bu ko yàlla tas yàlla bu ko yàlla tas euh, lépp lu ngeen ci bëgg rek damaa jo waxoon rek allahumma laa taxrimna xayra ma indaka bi suu'i ma indana waaw wax dafay ñaan ñaanal nit ñi ñaanal nit ñi ba seet jàkk rek xool boppam loo xool boppam yërëm boppam loo jaaxle rek ñëw rek tàllal ko fa ñaanal mu ne yàlla samay ñaay samay ñaaw yàlla boo ko toppee ba ba ba xañ ñii bu ma xoolee samay ñaaw teg yàlla rus leen rek xañ mukk sa jiw bi nekk ci yow ngir sama ñaawteef gi nekk ci man dama xam ko nga xam ko te weeru la ma weeru sama bopp ñii daw yaakaar sama jëm si man yow yàlla yàlla boo tax seen yaakaar waaye ñu ne ci suñu ñaawteef nga xam ne xam nañ respecté ci suñu biir nekk tey tiit waxtu ko yàlla xoole yàlla leen yàlla rus ba li yàlla defal leen yi bàyyi farata ci tay yu bari anam ba ca njëkk